asalaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñu suivre dakarnet.com euh, tey ñu amoon mbégte ci suñu plateau di dalal euh, Youssou Dieng di directeur artistique Wally Youssou ñu ngi lay di la ziar. maa di fay bu baax di kontaan ci dalal leen vraiment di nuyu Sénégal gépp di ndokkeel suñu mbokk chrétiens yi nga xamante ni weer yi seen weera euh, di leen souhaiter un joyeux Noël di profiter ci occasion bi aussi di. souhaiter à tous les Sénégalais une bonne et heureuse année. ñu gisoon euh, ay at ci ginnaaw da nga demoon Japon ñu lay laaj euh, euh, lan nga doon def foofu Japon lan nga fa doon liggéey. ah mais Japon <laughs> man euh, artiste laa mm-hmm. je suis né artiste dama judd ci ci ci kërub ngéwél mm-hmm. yamuma ci ma ma may jàng aar di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba ba mën ci dara. Mm-hmm. bi ci mënee dara. yàlla def euh, ma intégré groupe Doudou Ndiaye Coumba Rose depuis quatre-vingt-onze mm-hmm. Ndiaye Talla ma koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana mm-hmm. yàlla yokk ay leeram mm-hmm. muy góor gu baax boo xamante ni moo ñu jox chance suñu ñu def les grandes scènes du monde ah. moom laa àndaloon dem Japon eh? tombé amoureux dëkk ba. xam nga di dem di ñëw di dem di ñëw après nag euh, ma toog fa ma fa dëkkoon vraiment. aar rek laa fa doon def wax fa dëgg yàlla aar rek. Euh, ñu gis na ni euh, ku la xam dëgg xam ne da nga ànd ak suñu yaay Kiné Lam. Mhm. Mame Bamba mhm. di laajte ak moom. pour pour daal da nga jékki-jékki euh, gisatoo moom muy kii nga ne xaama bàyyi ko dem ci waa wala. nga la sama yaay la. voilà mun na ma ànd ak moom sama yaay la. Mhm. dama nekkoon xale am sama benn nijaay bu ko doon tëggal muy moor Kumba Mbengue maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. ma koy tëggal. nga koy tëggal kon da nga damay tëgg waaw wax naa la si suis artiste. Mhm. artiste la dama ko Mor Kumba moo doon tëggal ki ne la ma koy accompagner tu vois. Mhm. di doon mu doon na jigéen bu ma bëgg. Mhm. mu doon jigéen bu ma bëgg ndax ndaanaan la. Mhm. ndaanaan la ndaanaan la boo xamante ni xamuñu xamuñu xamuñu euh, ndeysaan. Euh, sax Sénégal moo doon dëkk boo xamante ni ndeysaan. dañuy xëy rek ber nit. wala ñu fàtte la. waaye ki ne la am nu mel ci xelu Sénégalais yi yaakaar naa ne euh, kenn du ko naataable. artistes bu nekk di jug di way mm-hmm. est-ce du yoon ñoom ñu dem ci jàng ji way avant ñi ñëw di way parce que tamit juddu ah, juddu ci géwal rek ne ñëpp dañuy way ngeen demee way tamit loolu tamit xaw na doy waar waaw doy na waar waaye fi ñu jàngalee way fii habitué wuñu Sénégal di jàng way ci ci ci école tu vois mm-hmm. booy jàng way mu nga ko jàngee sa kër sa kër ñoom Youssou Ndour ñii ñëpp jànguñu way Mm-hmm. <laughs> wala jàngewuñ ko ci école. dëgg la nañ doon jàngewee mooy gis waykat rek bëgg ko di ko topp. Mm-hmm. màgg juddu ci koñ mu am fa ay troupe théâtrale mm-hmm. am fa ay groupe nga yeneen di fréquenter. tu ci biir noonu yàlla dogal nga am une belle voix am nga baat moom yàllaa koy maye. des fois gis ku neex baat. koo xam dafa neex baat mais euh, du mën a way. tout à fait waaw nga gis koo xam ne euh, neexul baat mais dafa mën a way. tout à fait donc don la am na ñoo xamante ni soxla ñu ñuy jàgg way te te mën nañu way wax fa dëgg yàlla am na xam dañuy judd rek way. lu ñu war a def mooy. Mm-hmm. dem jàngi musique. jàngi musique musique la ñuy jàng. waaye way kenn du ko jàng. Mm-hmm. waaw dañuy dem jàngi musique xam gaam lan la. gaam jàng solfège. Mm-hmm. comprendre nga. jàng nooy duggee ci musique fooy xam nga jàng loo xam ne daal c'est des technique euh, vocales yoo xamante ni peut-être boo demee ci école de de musique yi ci réew mi. Mhm. dañ fa fekk ay professeurs ñu jàngal la musique. waaye géwël yàllaa ko cërale way. Mhm. géwël yàllaa ko cërale aar. Mhm. na ko nit ñi nangu. ndax nag ba fi école yi amul. amoon na ñuy waykat ñuy way lu kenn dul dindi. laaj ba Alaaji Badara Mbay Kaba suñu maam la. ba tey boo déglu ay woyam xam ne daanaanu woykat la woon te jàngewu ko ci école. Mhm. Adja xaar mbay ma jàgg. yàlla na ko yàlla gudd yàlla na yàlla guddal fanam. amiin amiin. Adja ki na lam mhm. seeni kër la ñu jànge woy dañu judd rek woy. dañoo gis léegi musique gu démb. ak mhm. musique gu tey. yow noo ko gisee. musique gu démb ak musique gu tey euh, xam nga ban problème lan moo leen wutale. nitu démb ak nitu tey. nitu tey ñoo amul benn maanaa. nitu tey waaw waaw. ñoo amul benn maanaa. lu tax amuñu maanaa nitu parce que na nitu démb téyewoon waykatu démb ak musigu démb. Mhm. nitu tey téyewuñ ko wayu tey ak ak musigu tey. lu waral loolu. loolu kay sénégalais yi la c'est le sénégalais sénégalais yi ñoo amul maanaa Gàmbi gi rek bu ñu fa demee ñetti fan la ñuy def yoo xam ne duñ noppalu ko chaque jour dañuy tëgg. Mhm. seen yoon nekkul ci lu ñuy def. ba tey sax dañuy gis ah, yenn malaxmaan yi Euh, di dem di jëm euh, ci euh, di dem ci Nigériens yi jël seen son di ko wéy te day cartonné. loolu non son yi Nigériens yi moomuñu son ah, son yi xam nga. Mhm. son boobu ngay ngay ngay ngay ngay dégg Nigéria mais am nañ ko ñoo leen ko ëppale sax. mais bariwul fii ñu ko fii waaye rek. ñoo waaw mais c'est parce que c'est parce que le Sénégalais mhm. aime sa langue le Sénégalais aime sa musique. dinay complexe complexe wu rek di bëgg bokk di tiitaru di dem ci leneen mhm. waaye mbedd mi làkkuñu tubaab mhm. làkkuñu anglais te dégg nañ ko mhm. noonu ñu mel ci suñu làng nag bu ko meloon ci suñu musique respecter musique bi te gëm ne industrie la bu boobaa mën nañu am lu ëpp lii ñu am mais musique bi yaa que les musiciens yi dañoo nekk ci autour de la musique di di góorgóorlu te c'est pas normal donc musique gu démb ak musique gu tey musique jugul fa mu ne woon ba tey tey la musique gën a développé. la tey la gën a développé xale yi mun nañu bañ a am kilifa rek ak am encadrement mais musique bi macha allah xale ay jàmbaar lañ de musique bi mi ngi am maanaa bay bëgg dee set na. Mhm. leer na ci boo bëggee mu leer. ba musique gu démb ba sax am na ñoo xamante ni li ci ñenn ñu doon daj daju ñu ko ca. waaye musique ku ci sonn mu teral la boo ci defee li war rek mu teral la gis nga ah, nga nekk ci benn série mm-hmm. infidèle mm-hmm. ñu leen laaj ba xam yow ni ngay comportewoo ci film bi boo génnee noonu ngay comportewoo loolu mënul nekk film bi nit ku ne li ngay comportewoo ci film lu ñu lay bindal la scénariste bi mooy mooy def mooy def ay rôle am ku jëlee rôle yi mm-hmm. mais euh, jël ay nit ne leen lii laa ba ngeen ngeen ngeen ngeen interpréter tu Euh, léegi nag foofu la artiste bi di feeñee ndax artiste nga wala doo artiste. la motivation ak infidèle. infidèle euh, nice. nice mais bañu woo la pour nga ñëw di euh, di leen tamit. casting. casting waaye waaw ñu ma rek parce que Youssou Dieng laa damay ànd ak de. non non non non dañu def casting. Mhm. ñu woo ma ci casting bi Tafa bu idol sama nice boy sama xarit la sama rakk la ah koy nuyu de passage. Tafa la ñu daje rek ci ay affaires yu ñu doon def mu ne waay grand bi artiste la. Mhm. après mu woo ma casting grand dañu am casting dama dem ma dem lii lañ bëgg nga joué ma essayé ñu jël ma. Mhm. voilà loolu rek la casting la léeg-léeg nit ñi di wax grand dama bëggul ci théâtre man mënuma dugal kenn ci théâtre Abdou mii ngeen gis ci infidèle muy mhm. joué casting moo ko dugal ci série bi casting bu amee ngeen dem tenter seen seen chance bu <laughs> ngeen mënee ah. ñu jël leen bu ngeen convaincre euh, scénariste yi rek ñu jël leen. mais man du ma yóbbu mënu ma yóbbu kenn sama doom yi sax mënu ma leen dugal ci théâtre sa wàllu théâtre dañu gis ci xaaw ngéwale quoi. Hmm. ak géwél laa di. ak géwél nga dëgg géwél laa. Hmm. bu ma ngéwélee rek wàcc. waaw. <laughs> géwél laa. ci néegi ndey ak néegi bàyyi. Hmm. bilaay aw ma daraay géer. te yàlla bu ma géeree. Euh, amul ay xale jigéen ñi la topp sa style bi. Ah, ah ah kay jamono ji loolu lañu bëgg. Ah, kay bu baax a baax baax waaye man damam jabar waaw ku baax ñu toppale balaa may jouer film sax topp nañ ma. Euh, musiciens yi démb artistes yi ñoom ñëpp ñu wàcc ci terrain bi di def marche marche bu boo xam ne marche bu noble la euh, di laaj yow naka gisee loolu noonu. li yi metti na kenn fekku leen ci mm-hmm. te nit bala nga ko yilif. da koy jëriñ da koy yor tu xale boo joxul lekk joxoo ko naan woor doo ko. Mm-hmm. xëy bis xëy bis bëgg ko tere lu mu bëgg du logique. Ah, rappeurs yi ñoom lu mun ti xaw dañuy taxaw génn wax. Mm-hmm. génn wax ko mm-hmm. mais ah, ñu gis ma mbalax ma ñoom. dañ génn forme de musique gu rap. rap moo juddu wax. rap léppam kaas la. Mm. donc ñoom il faut ñu kaas te mbalax nag léppam. Mhm. ndeysaan laambi soo la. laambi soo <laughs> nga. <laughs> donc yëf noonu la demee. Ah, mbokk yi tey lii la leen andiloon di dalaloon daanaan bi waxtaan ak moom ah, di nuyu ñëpp nag di nuyu mbokk internet yi di leen wax ne ëllëg beneen ah, artistes yi dañuy dalal incha allah di nuyu sama cameraman Dieye Ramos mooy mi ngi def liggéey bu mucc ayib.